asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di profité ci korité bi di leen baal àq te di leen baalu àq yéen nga xamante ne yéen a ngi ñuy suivre fu ngeen toll di leen dalal jàmm seen émission bu bees bi ñu naan pencum Hann ñu am mbégte ak bu mag di ci ànd ak euh, monsieur Babacar Mbengue nekk maire bu Hann dañ ciy feggoo également ak sama naataango Mado Mado ñu bàyyi la nga nuyoog mbokku internet yi ñuy seetaan lay jaajëfal di la di nuyu suñu mbokk internet yi nga xamante ni ñoom ñoo safoo Hann TV teg si di dalal suñu monsieur le maire Babacar Mbengue

nu mu gën a gaawee mbas mi nga xam ne tey mun naa ne moo xaw a lëmbee àdduna mu jógee fii ci nu mu gën a gaawee. comme nuñ ko waxee sànq rek pencum en émission la bi xamante ne dafay waxtaanee lépp luy xew bu jëm fii ci Hann donc waxtaan bi dina xaw a particulier parce que du penco la ñuy def échange entre ñun ak yow léegi ñu bëggoon a xam rek euh, ban jàng nga am ginnaaw ba mbas bi tàmbalee ba léegi monsieur le maire. waaw euh, d'abord euh, damay masawu coono en tout cas ñëpp. mon naa ne Sénégal yëpp euh, di le personnel médical bi nga xam ne boobu ba léegi ñoom ñoo ci gën a sonn exposé aussi di masawu en tout cas ñi nga xam ne ñoo que dans le communautaire que dans le service euh, social ñi nga xam ne dañoo à la disposition des populations bokk nag ci ñi nga xam ne ñi ngi bi et bien entendu mangi confondre en tout cas euh, à ces encouragements ñi nga xam c'est la Croix-Rouge

donc lolo, jangat la bo xamante ci aduna ne que en tout cas dëkk yi bu ci nek selon ce gis-gis ak ce stratégie yaa ngi mettre en place programme bo xamante li nga bëgg moy d'abord dagg chaîne de transmission gis ngeen tëj nañu aéroport yi motax déggoto ci benn deuk ñu wax la cas importé légui cas yi ñuy traiter moy plus les cas contact ak les cas communautaires donc ñaari cas yu, ci feebar bi nga xamné tay fofu nañu tollu dañoo gis ne que euh, en tout cas problème la en tout cas ci Sénégal bi ñu man anbeler, bi nga xamné fa laa nekk li ma préoccupé mooy chiffres yi ni muy yokku chaque jour nak chiffres yi yokku mais euh, li ci am solo moy d'abord nit ñi mëna bayyi xel que coronavirus feebar la bo xamantene ne mingi law mais ñu bàyyi xel ne que feebar boo xamante ne dafay rey parce que booy communiquer aussi booy def sensibilisation il faut que chaque citoyen mën a xam risque bi nekk ci nga am coronavirus. en tout cas njàngat bi nga xam ne am nañ ko ci ci mun naa ne semaine yi gala dafay loo xamante ne ñun war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. monsieur le maire ban taxawaay la mairie bu Hann ngir jàmmarloo ak mbas mi alors boo gisee j'ai beaucoup insisté d'abord ci prise de conscience su population parce que da ngay gis ñu bare dañ lay wax né la ñi ngi xeex coronavirus joxé nañu ceeb joxé nañu li joxé nañu leen non ceeb du xeex coronavirus il faut que ñu d'accord kit alimentaire du xeex coronavirus kit alimentaire dafa am lo xamante benen approche sociale ñun au niveau de la commune de Hann nous avons toujours ci biir stratégie parce que nous aussi on a un programme ñu avons ko programme Jamarlo ak corona Covid 19. donc si vous voulez am actes yu bëri ci au tout début de la pandémie nous avons les lépp luy structure publique accompagner équipements, leen équipe jox leen ay équipement gel masque thermoflash donc. Euh, yenn services yi ñu réduire seeni activité maanaam créer les conditions pour éviter nit ñi en tout cas di interagir parce que jàpp nañ ne que ci demlante bu bari bi ci le ci rassemblement yi ci la nit yi di kiiwee même ba fii ci mairie bi disposition yi ñu jël mooy que bareetul en tout cas boo leen fi ñëwee service minimum ni noonu ñuy def agent yu bare on leur a demandé ñu toog de temps en temps bu ñu leen soxlaa ñu ñëw jàppale ñu ci liggéey bi

Alors, l'homme, c'est des préoccupations. Donc, nous, dans nos stratégies, on a assisté les populations. Tout récemment, je pense que invité au Gisgen, en tout cas, on a offert 3500 kits pour une valeur de 175 millions aux populations de Han. Et si aux populations de Han, le maire de ñëw tokre usé de son pouvoir discrétionnaire pour ne quitter yi man non l'État a fait un don important aux populations nous avons un cadre bu commission communale pour répartir li nga de l'État la état di alors bi état jëlee disposition euh, avec ce comité communal nous mettre en place des comités de quartier de ciblage donc comité de ciblage de quartier yi nga des dans le quartier dañuy des délégué de quartier des président de conseil de quartier des associations, ou les élus des imams, imam qui, nga xamné mi ngi ci église bi et les personnes ressources faut que donc wuñu ken relais communautaire ñom ñep président ASC ñom ñep ñu toog ñom ñoy def le ciblage dans le quartier et c'est comme ça qu'on a travaillé dans toute la commune bi a fait le comité de ciblage déjà pour répartir def un ciblage par rapport aux bénéficiaires ci bourse état la mairie ñeu en appoint parce que ñun dañu newoon dans la première stratégie état fay jox ba ñi nga xam nañ mëna yam après ñun ñu ñëw mais on s'est rendu compte que ça traînait parce que ñun jëloon nañ ci disposition et depuis le premier jour du ramadan pour mën ko joxé ñu né nañu xaar nañu xaar mais gis ngeen né que ba légui bon les produits de l'état ñëwagul parce que dafa bari xam nga il fallait euh, ñu organiser wu donc euh, vraiment nous ne léegi ñun dañuy dem et le principe qui avait été retenu moo donne que dans chaque maison au moins ben kit dugg parce que japp nañ ko bu dans chaque maison de na a soulager bien entendu bu ñu 3500 kits on sait que la population de anne est de 3500 familles mais dañu ne a dañuy jox ñi nga au moins euh ñoko gëna et on a laissé ce même comité bi comité de ciblage état ce même comité la ñu jël lepp versé wat len ko et on a procédé à la à la répartition et je pense que pour nous, vous avez vu que c'est des kits quand même assez euh, valorisants parce que c'était du riz parfumé 5 kg 5 sucre 5 litres d'huile carton de savon donc euh, café 1 kg, euh, sachet de lait en poudre à tàndarma bon ñu si

parce que man je ne que comité de ciblage est connu parce que ñun faluñu kenn délégué de quartier nga le président de conseil de quartier président de conseil de quartier le quartier bi ñoo fal conseil municipal, c'est le quartier bi nous bopp ñoo de fal c'est quartier bi seen bopp ñoo fal président quartier bi nous bopp relais communautaire nga wër commune imaginez-vous dans chaque comité de ciblage parce que nous directive une nañ dans le comité et je veux préciser aussi que ce comité de manma qui qui dirigé Qui était le premier adjoint au maire donc directive yi nga les comités de ciblage étaient très clairs alors man que dans chaque quartier il y a di répartition y a un groupe Donc, il donc il faut wax ne que en tout cas nous devons ko répartir transparence il y a eu de la transparence donc c'est pour ça que nous voulons que que dans le ciblage ñun dans le quartier rek nous on a laissé la latitude à tous ces responsables à tous ces comités bu ma un comité c'est pluriel hein. c'est-à-dire que du un quartier tous les quartiers de la commune sans exception à chaque fois que nous sollicitons, ma dama un comité de ciblage Nous identifions, nous ñu est-ce que war avez ou pas donc je que dans la démarche je tiens à le préciser politique à Mouti, la démarche elle a été transparente démarche bi def de telle sorte que la position des uns et des autres était une position impartiale et que en tout cas guisneyou aussi les retours et on les a bien ressentis parce que Fodem aussi les gens t'interpellent de le remercier et pourtant ba on n'était pas forcément là-bas donc je pense que la méthode elle était importante déjà pour pouvoir réussir l'opération parce que aussi ngeen xel que répartir 3500 kits c'est n'est pas facile c'est n'est vraiment pas facile parce que bon di nga tollu fo xamantane ñepp ci bëgg am aussi. alors je tiens à le dire ici amul Ken dans Hann bénéficiaire des 3500 kits bo xamantane ne yaa ak sa bon te joxuñu le ce kit ça n'existe pas bu fekké né Amna na nañ ma indil bon bon donc c'est vraiment pour vous dire que de ce point de vue il faut délais, ah fa nga xam parce que pour éviter les attroupements on s'est arrangé pour faire 5 points de distribution montagne maison de partage site le haut. boo dans mon am nous euh, suñu benn xarit ndaw ku baax ku magasin parce qu'on a voulu aussi que nous, nous gën mais faire de la proximité Nous avons fait des filles qui ci CM Hann de di ko écoles école Doudou Mbaj donc ce sont les cinq sites yi nga ramené en tout cas distribué nañ six sites qui ont ne nit dem mais à mon niveau et comme au niveau de l'administration centrale on ne nous a pas remonté maintenant il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre qu'on a ne da nga bénéficier ci kit mairie ak koo xamante ne da nga bénéficier ci bourse état le plus souvent loolu mooy le problème di nga gis ki ñëw ne la ah man day ñëw naa alors que en réalité amul bon parce que physiquement les seuls bons yi nga xam ne moom la ñu distribué woon c'était les bons ci kit yi nga xam ne mairie Hann Bel-Air moo ko defoon. mu nekk lu am solo monsieur le maire comme ni nga ko waxee léegi.

Tay euh, bi Covid 19 ñëwee da fay lo ne ñoom ñëpp daf ñu bét en début d'année mais dafa am activité yo xamante lu mënul ñak la lu mënul ñak daf ci am lo xamante bo ci dem da nga ciy demee benn prudence mais deuxièmement nga am maîtrise également ce budget parce que buñu né maîtrise ce budget du ki nga xamné ne da ngay jug rek def li nga daal di toogaat woowaat virement de crédit changé naa damay def lii nga toogaat woowaat virement de crédit damay def léegi non ñun dañu am benn débat d'orientation budgétaire boo xamante ne bu ñu ko xasee ba déroulé waxtaanee ko au mois de novembre janvier ñu voter budget bi dañuy dérouler suñu programme sauf cas exceptionnel Covid 19 nekkoon cas exceptionnel. Covid 19 ba mu nekkee cas exceptionnel dafa fekkoon amoon na déjà euh, disposition yoo xamante ne jëloon nañ ko ci action sociale donc ñun dañoo jàpp ne que Covid 19 bi dafa bokk ci loo xamante ne action sociale la mais dafa am loo xamante ne mënul ñàkk tey mun nañu ne que exemple bi may joxe mooy Pâques suñu mbokku catholique bi Pâques jotee fekk ñi ngi nekkoon en plein début de crise alors dégg ngeen ñu bare daal ne non duñ ko def duñu lii duñu lële dégg ngeen aussi ñu ne euh, ngalax du am d'accord bu ñu ne ngalax du am c'est-à-dire avant nañ fait daan pour des questions d'hygiène mënuñu di yàkkalaate di jël di yóbbu mais famille c'est seen bopp ku ci xëy suba di nga toog julli nga tok ak sa njaboot di nga défar li ngay feetoo nga def ko mais ñun on a assisté les familles catholiques dépensé nañu presque 27 millions yo xamantane dañ ko jëmelé yobbu ko ci église et les bénéficiaires dem ñu defal leen ay mandat ñu daal di dem et pour la tabaski, Inch'Allah, on, on, on, on, entend faire la même chose. Donc c'est pour vous dire que, vous faites que nous avons fait en tout cas, def ko ci leneen dañ faire def ci Covid 19 Hann Bel-Air deful loolu Hann Bel-Air continuer de fonctionner normalement parce que ci suñu planifie, ci suñu orientation li nga xam ne moom la ñu prévoir woon dafay loo xamante ne lu voté woon la bi ngeen di ñëw gis ngeen travaux yi nekk de réhabilitation au niveau de la mairie boo demee ci biti dans les chantiers ñi ngi continuer c'est parce que loolu dafay disposition yo xamante ne lu ñu jëloon la nekk ci di ci maintenant la prudence mooy nañu les dara Covid 19 dañuy ñaan yàlla mu jeex tey waaye vous bu que le Covid 19 dafay continuer du jël lépp loo xamante ne lu am la rek xëpp ko ci biir moo tax man damay faral di wax ne nañu def la nga xam ne. Même la population yi di parce que ku ci nekk nag nga les populations sollicité ñu on a vu que en un moment donné les populations ont une attente mu bokkoon également à disposition yi parce que en termes de prévision budgétaire quand même parce que les dans une gestion dafa am ñaar mun nga dans le budget disposition code général des collectivités locales ou nga euh, au niveau de la perception Nous avons mais dafa am loo aussi vision qui nous nga dirigée exécutée exécuter dans sa commune donc nous avons une disposition déjà de donc c'est vraiment pour vous dire que nous avons une mu mais mais bon, l'ouverture ouverture des classes éducation bi ñuy jëm après. développer après dafa am des frais qui est engagé mais loolu yëpp dafa bokk ci loo xamante ne à la limite lu ñu prévoir woon la muy doon inscription budgétaire loo xamante ne at bu jot dañ koy def donc tey ñun suñu stratégie mooy amul dara lu ciy daj suba bu ñu newoon ne nawetaan dafay am daañu joxe subvention ëllëg bu ñu newoon ne euh, tabaski jot na daañu joxe tabaski beneen aspect bi nga xam ne dafa am solo ñu continuer di ko def ñun depuis deux ans au niveau de la commission euh, sociale nous aider les populations aider les populations ci kaw ku le Covid 19 nga feebar am problème au cancer un problème où ñu war la fibroscopie war a une maladie sérieuse def AVC mais il faut que ñu fassions la wala dañu bëgg jël orienté vers le Covid 19 non dafa une disposition une ñu la commission se réunit, nous étudions les demandes des populations de Han, parce que le principe, moi, de nous appeler Kenan Koudokul Han, donc, si vous faites un dossier que nous recevoir, nous savons que qui a fait AVC, a fait l'assistance de la commission sociale traite, mais on te fait un aide là. C'est des mandats de 150 000, c'est des mandats de 200 000, c'est des mandats de 300 000. Nous savons que les gens ils ont un cancer, dañ il dem di un parfois euh, yenn traitement qui xamante coûte cher mais popula mais dañuy continuer di leen aider c'est une opportunité pour que nous rassurer l'opinion que les loo xamante ne nañ maintenant du ñàkk qu'il y ait des lenteurs c'est normal parce que di nga gis service yu dañuy en sous-effectif mais je pense que l'essentiel de notre mission tey de continuer vraiment di travailler vraiment très sereinement voilà mbokku internet en TV ñu leen di fàttali rek na yéne ngi seen émission pencum an naka waxtané actualité ak politique té suñu invité nek monsieur Babacar Mbengue di maire bu Hann bel monsieur le maire ñu némé ko nek ñenn ci entreprise yi nga xamanté na ñoo nek fi ci gox bi indir nañ leen ay ndimbal rawatina bu ville de Dakar ñu bëggoon xam rek naka ngeen ko répartir. alors nous avons reçu euh, pas mal de dons et c'est pour ça que à chaque fois que nous recevoir on a tenu à ce que la presse locale en tout cas soit là à ce qu'on fasse une publication, c'était d'abord pour encourager ces entreprises. Et euh, d'abord pour encourager les autres entreprises à en faire autant. Pour que nous nous nous par exemple, euh, quand on a fait la répartition des 3500 vivres, la commission se réunit. Et quand la commission sociale se réunit, nous évaluer, quantifier les gens qui nous recevoir. On avait reçu 2 millions de la pâtisserie, euh, cité Israël, les résidents avaient donné, parce qu'il y a même une cité, Marinas, les résidents de Marinas qui se sont contribués, nous indi presque 400 000 je crois, euh, MPS indi 100 000, Kenen Nonou, Kenen Nonou. Mais, nous la répartition, parce qu'on est parti de 3500 kits, on s'était rendu compte que logis correction de Fiam, on avait reçu 15 tonnes de riz de, de la ville de Dakar, BTP avec des kits, mais l'argent nous a permis dem d'autres intrants comme ay et autres indies, pour renforcer ces kits là et élargir également la distribution donc c'est vraiment pour vous dire que de ce point de vue c'est quelque chose qui nous a énormément aidé et bu me je pense que après les 3500 kits sur les autres kits qu'on a reçus on a pu construire au moins 300 à 400 kits autres kits donc c'est pour vous dire que dans est déjà on a assisté près de 400 familles donc nous, loo xamante lu lu lu parce qu'au début on s'était dit que si on ne recevoir yi ñu nous dañuy jël mais si on les dajalee on tout de suite c'est la commission elle-même qui a géré ça un groupe dem le matériel indi nous ñu répartir donc vraiment c'est pour vous dire que de ce point de vue je pense que occasion là, aussi pour que les entreprises nous xam ne ñu il y a des partenaires L'OAM am dañuy de manière tout à fait spontanée BDTP remercier LEN, remercier Patisson, donc remercier également donc euh, euh, MSP euh, hein, remercier également les résidents de Marinas c'est comme l'association des coiffeurs des coiffeuses et l'association des des tailleurs des masques ñëw indi ñu nous. notre ami Jalof. Djalof Naga, relax defar ay masques aussi c'est comme notre amie Madame Sad une dame marocaine donc chef d'entreprise defar plus de 500 masques et l'eau lieu, par exemple ce qu'on a prévu avec les masques le lot de masques important qu'on a reçu c'est que le personnel enseignant de dem Djahlenko. et là on est en train de préparer aussi retourner dans certains quartiers faire de la sensibilisation pour renforcer les Djahlen des masques mais comme je dis masque la place du poche wala ci baat masque moom boo ko amee sol ko surtout booy génn. waaw mu nekk loo am solo monsieur le maire comme ni mu ko waxee am na yenn entreprise yi nga xamante ne ñëw lañ dimbali leen mais nemmeeku nañ ne yaraax zone industrielle la bëri na ay entreprise trop léegi est-ce que am na ñoo xamante ne ñëwul. li fi ñëw ci entreprise tox la par rapport ak li fi war a ñëw mais comme je dis toujours les chefs d'entreprise ñi ngi dans les réseaux sociaux c'est des gens qui nous suivent euh, en tout cas la mairie de Hann du sonal boppam parce que tàyyi nañu nag ci di jël entreprise di bind pour la petite anecdote ouverture de classe bu joté ñun dañuy jël lettre danañ jël lu mat raamu papier bind ci entreprise Sangam, defal la lettre ak ouverture de classe demander seen appui à l'école ci gannaaw lettre bi ñu defal leen liste li ñu soxla cahier bic machin xam nga ñun laajuñu xaalis mm-hmm. entreprise bu ci nekk bu indi woon benn carton carton bu ndaw rek kii def feuille kii def bi def mais non seulement da ngay jël da ngay temps bi mu jël pour nga distribuer ko personnel bi war a jël téléphone di woote ñu naan jot nañu lettre bi fu mu toll ñu la xaaral ma et que finalement tu te rends compte que tu n'as que dix entreprises di loolu dafay loo xamante ne du encouragé dafay tax ba situation yu mel bu je dis personnellement en tout cas de ma c'est une une entreprise pourquoi Patissier, entreprise vous êtes de Vous la dañoo DG bi eh, je vous envoie ma participation et pourtant a une relation forcée avec nous. ils sont dans l'agroalimentaire nga avons une entreprise comme BDTP Babacar entreprise de construction qui n'a pas de relation avec la mairie Anne la problème situation am mu woote ne maa ngi ma participation nga daal di madame Ndiaye même chose situation am madame Ndiaye euh, MSP MPS pardon daal di ñëw de écoute damay indi ma modeste participation des résidents ni de Marinas cotisé d'ailleurs à peu près je crois 350, 315 000. trois une modeste délégation nous, ak seeni ay produits nañu kii c'est notre participation mais dafa am loo xamante li ngay xëyee le matin daan ne maa ngi génn maa ngi dem war sol masque noonu la entreprise bu ci nekk ci sa environnement nga war a préoccupé de ton environnement nga xam que la collectivité mi ngi fi population yi ñoom tey yaakaar ñun nañu dem jàppale leen alors je pense que loolu encore une fois du ñu tàyyi di ko fàttali c'est-à-dire qu'il y a des actions citoyennes mais actions citoyennes, qui ne sentir mon Nous def nañ rek ngi entreprise def seen di dem wax aussi ñàkk lu mel noonu buñ ko en tout cas euh, rafetlu wuñu ñi parce que am entreprise yoo xam ngi fi toujours nga télé entreprise bu dëkk ci commune que région de

proprement, en tout cas, avisé. Alors, quand on nous l'a signalé, tout de suite, nous euh, avons nañu toog waxtaan dem nañu sax ba ne xam nga xaw doy et Nous ci dañu bëgg dem est-ce que nous bi du nous ku Nous ci dëkk bi bëgg mais en tout cas avons nañu disposition que ce soit avec le préfet et la gendarmerie que cas vous fiy dugguti ñun dañ ñu signaler pourquoi parce que dafa am disposition énorme norme yi ñuy suulee néew Covid 19 parce que déjà en termes de profondeur on te dit qu'il te faut au moins 1,50 m 2 m mètres de profondeur à disposition de ñu donc il y dafay loo xamante dana parce que nous, bu aussi li nga prérogatives parce que quand on un dafa uniforme un sapeur pompier je veux dire am nañu prérogative ou réquisitions, quel que soit l'heure quel que soit le moment nous euh, menons a ñëw jël néew mais li à mon solo comme j'ai dit c'était de nous assurer aussi que ça s'est fait dans la légalité et sur le ça s'est fait dans la légalité Ce qui peut-être entre information et la légalité ñaar la mais bu que ne ci suul bi

doo ñaaw njort mais ci jamono jii ñu toll lu xew da nga war ñaar njort et je pense que loolu c'est c'est des dispositions qui sont prises de ce point de vue. bon merci beaucoup monsieur Babacar Mbengue euh, tout à l'heure si say say kàddu yaa ngi doon remercier système sanitaire bi ñu ci ñu ciy xëy sax su nekk di xeex euh, ak mbas mi la ma bëggoon xam rek ndax euh, ba xam est-ce que comité de développement sanitaire yi ñoo ngi remplir réellement seen rôles alors ñooñu dañ leen di masawu waxuma la remplir seen rôle rek waaye les comités de développement sanitaire muy bi nekk en pêcheur bi nekk montagne bi nekk en village ak bi nga xam ne ma nga nekk mariste dañ leen di masawu pourquoi dañ leen di masawu mun naa ne tey seen i recettes yépp li nga xam ne moo leen doon mën a permettre ñu tourner c'est-à-dire que dañ ko dugal dans ce programme tey et les gens presque ne payent plus xam nga sànq yéen ngi wax autant yéen ngi wax waxu budget parce que budget partie bi ñuy fàtte toujours mooy partie recette voté nañ budget am na budget tant de milliards mais dañuy fàtte na que tant de milliards boobu loolu prévision de dépenses, la prévision prévision autorisé nañ le maire à ce que mu dépenser tant ci kaw nañ ko autorisé woon à lañ doon yaakaar en termes de recette pour recevoir par exemple 10 milliards autoriser nañ ko dépenser 10 milliards soxlawul muy dellu siwaat de laaj conseil municipal donc ñun comité de développement sanitaire bobu ngeen di wax difficulté yooyu nga xam ñom dañuy déjà on leur devait beaucoup d'argent ci couverture maladie universelle muy un programme ambitieux bi les populations en bénéficient mais les remboursements na daan amé ce qui veut dire que ñi nga des amours trésorerie

parce que dafa am lo xamantene man mun naa comprendre nga jël route nationale wara dem ci sa yoon mais da nga gis embouteillage ak ne xaaral jël raccourci lolu moko indi problème la parce que ñi ngi dugg dans une zone d'habitation té bu féké né jël nga restructuration bi amna lo xamantene gis ngeen ko moy il y a des ralentisseurs partout waxatuma le ralentisseur mais amna sax partie yo xamantene da ngay gis ay boom, fa teg muy def office de ralentisseur maanaam doo daan mais loolu yëpp dafay écoute euh, taux de fréquentation wu euh, camions yi par rapport à cela et nous, la première mesure que nous avons en tout cas au niveau de cette municipalité c'est jël un arrêté d'interdiction maintenant ce qu'il faut comprendre dans ce projet c'est que tey nañu def la réception provisoire du projet de restructuration qui ci suba à 10 h avec l'AFD la fondation droit à la ville euh, le bureau d'études ah en tout cas qui euh, nga xam euh, mon entreprise de efage qui a fait une réception provisoire parce que dafa un cahier de charge naka la projet bi naka waroon defee naka nañ ko waroon aménager et tout ça me paraît. maintenant vous ñu une réception provisoire réception définitive dana am a, indi inauguration mais dafa am loo maintenant dans le projet toujours il y a des travaux complémentaires donc ci les travaux complémentaires il y rien un arrêté municipal il est prévu en tout cas des panneaux de signalisation qui interdire le passage de ces camions mm-hmm. mais ce yëpp dafay doon aussi ce sera en bonne intelligence parce que la gendarmerie jot na mais mais gendarmerie bu faites que signal yi ñu leen ay anomalie du ñu mais ce sera un travail qui sera fait de sensibilisation avec les conseils de quartier, les délégués de quartier, de telle sorte que nous de risque parce qu'on a même vu des cas d'accident. Auto yo xamantene dugg nañu donc euh, mu accident mais on, s'est rendu compte qu'effectivement euh da fay lo gros porteur comme je dis dañu yem tu vois lélé nak nga tomber aussi ci un gros porteur nga tu te rends compte que bon euh, ku doon livrer matériel ou wala ku marchandises livrer marchandise mais en tout cas de ce point de vue prévoir en tout cas euh, disposition permettre vraiment que ce soit effectif et que euh, matériel euh, et que en tout cas ces gros porteurs en tout cas nous réduire bu taux de de fréquentation ci quartier bi. puisque arrêté bobu signé nga ko ba pare lan mo wa lenteur bi ba tax pour auto yi mën a arrêté di. wa mais lolu auto yi ñom xam nañ ko c'est-à-dire que dafa am ño xamante euh, comme je dis euh, il y a pas de lenteur buñu jëlé disposition c'est interdit c'est interdit moo tax dans les travaux complémentaires buñu ñu ba nga xamné am nañu des panneaux d'indication parce que boy dugg ci sens interdit mën nga bañu dëkk ci dëkk ba mais boy dugg si ci tali bi nga gis panneau sens interdit bi.

ci ci mesures Sénégal déjà nous savons que nous changé changer mesures parce que am un assouplissement ci mesures yi mu njëkkoon a jël léegi ma bëggoon a xam avons ndax d'accord nga que mesures yooyu ñu pour assouplir les assouplir mesures Le président doit subir une euh, pression écoute il m'est difficile de dire que le président doit subir une pression ba moo tax mu dellu gannaaw mais man en tout cas bu faites ne sentiment à titre personnel étant un homme de terrain DJ en tout cas c'est la réalité du terrain je pense que euh, pour le Sénégal Google niveau boo xamante moi je pense qu'il fallait carrément en tout cas mun corser les mesures parce que nous n'y def association tay nit ñi librement comme si de rien n'était autant effectivement on, le sentait un peu dans dans dans l'approche on sentir attitude même dans la campagne de sensibilisation mais presque les gens se presque ay gants da ngay ay masques dans des cérémonies quand je dis cérémonie nit bu guéné àdduna il faut nga dem ci mais da ngay dem

je ne dirais pas qu'il a subi une pression mais pour moi, mon sentiment c'était prématuré pour que vraiment nous menions. Euh, voilà wani qui vit quoi voilà merci beaucoup mais sans que ça, wax rien que bëgg ngeen euh, teewal masque ci école les élèves ne reprennent les cours mais jusque là vous nous avez juste euh, précisé le port des masques mm-hmm. vous avez juste précisé le port des masques donc nous en fait xeex loolu noonu bëgg a bëgg a bëgg a waxtaan ak xale yi nekk suñu gox bi parce que toujours est-il dire que on est toujours dans notre zone la zone de Hann suñu école yi mais est-ce que mairie bu andi wala lan ana ban taxawaay la mairie bu andi déjà alors on peut pas juste parler des masques sans parler de gel ou autre chose nous allons avoir 509 élèves en classe de CM2 509 élèves en classe de CM2 pour Anne dans toutes les écoles de Anbeler nous allons remettre samedi au collectif des directeurs d'école de la commune, des établissements publics, 1600 masques en raison de 3 masques par élève. Donc déjà, lolo, c'est du concret. Il permet déjà à ce que l'élève et un lot de gel important. de me là-dessus. Maintenant, une fois que école je pense que les premières mesures déjà boo amee l'eau pour protection du ñàkk bu pas, tijjee mu am yenn yoo xamante des choses nga ajuster pour corriger c'est toujours comme ça parce que gestion de crise moo mel noonu di nga def loo xamante ne des choses, mais da ngay jàpp ne que am na loo xamante ne boo ko defee de faire mais indépendamment de cela il faut que nous bàyyi ci xel dañuy la salle de classe yi xale yi di jàngi Hann a eu une réputation et la réputation me donne que nous avions l'une des meilleures écoles publiques élémentaires. Mais c'est un défi également pour la collectivité locale. Et nous voudrons que, bon, demain, malgré l'IFIGAR, le confinement, élèves nous demain à des examens, que les élèves aient d'aussi bons, sinon même de meilleurs résultats. Mais lolo, de faire un accompagnement, parce que nous avons une disposition chaque année, une subvention que l'on donne au collectif des directeurs d'école. Et je pense qu'on va renouveler cette subvention pour que les élèves en classe d'examen nous encadrer donc encore une fois euh, tooguñu rek Covid 19 mais il y a Covid 19 mais également éducation l'importance de l'éducation déjà parce que c'est notre mission. j'aurais pu aussi en tant que maire dire que l'État a annoncé que dans joxe 10 millions de masques les élèves c'est ce qui a été dit mais soxlawul kon may 1600 masques pour les élèves d'armes, parce que ñi mais comme on est dans la prévention de je préfère voir un élève se retrouver avec six masques qu'un élève qui se retrouve le premier jour sans masque ñun état dana mais en retard donc c'est vraiment pour vous dire qu'on est vraiment dans la prévention dans notre émission bi leen monsieur le maire léegi ñu bëggoon xam est-ce que mën nañ la xaar sur le terrain pour accompagner élèves yi waa dem jàng le deux jours pour que man ma dem le ji waaw man dama leen di dama leen di dama mm-hmm. mm-hmm. maintenant avant que bien sûr que ñuy dans les salles de classe comme ni nga mm-hmm. c'était quand même des lieux qui étaient fermés pendant longtemps et toutes les écoles seront désinfectées donc loolu aussi dafay aspect boo xamante ne am solo en tout cas sachez que la mairie de Hann le conseil municipal de Hann Bel-Air am na en tout cas képp ko xamantane, ñun yek lañ ko Dañu la assister ci lu jëm ci walu Covid 19. pour ce qui est de l'éducation, daf ci am lo xamantane euh mëna né bokul ci programme pédagogique bokul li bokul wax lële mais ñun li ñu japp moy suñuy doom yi képp ko xamantane population Hann bel la mairie bi de faire pour protéger en tout cas ses concitoyens pour protéger ses élèves. Nous, nous avons une mission publique. La collectivité locale a une mission publique. Mais je pense que l'État, dans sa déclaration, doit intégrer aussi bien public que privé. Mais nous, on a un cadre. Depuis des années, où le collectif des directeurs d'école d'enseignement public. Nous savons que c'est avec eux qu'on fait tous les programmes. Parce que c'est aussi une prérogative. Nous, une prérogative du par exemple de réhabiliter l'école des maristes wala réhabiliter l'école Alwa ou Benen ak Nous, Nous c'est des privés parce que nous nga que dans les établissements publics nous faisons fay mairie bi accompagner soit la commune soit la ville de Dakar ou l'État du Sénégal mais pour les écoles privées nous dem di un service pour ces enfants donc un retour en tout cas je pense qu'il faut beaucoup dans le service mais pour disposition comme ça a toujours été le cas nous avons un programme de réhabilitation de toutes les écoles publiques de la commune comme euh, nous avons des subventions, en tout cas aux activités d'enseignement élémentaire l'Ep en tout cas au niveau des écoles publiques voilà mbokk internet yi daanaka émission monsieur le maire ñu bàyyi la nga tàggoo mbokk internet ñu doon seetaan. waaw man li encore une fois je remercie remercie, vous nos partenaires Je remercie remercier euh, le travail de sensibilisation que vous êtes en train de faire muy vous remercie solo surtout euh, d'une manière générale par rapport à nos projets de réalisation parce que c'est vrai que ce euh, n'est pas seulement que parler de li c'est l'actualité parce que une actualité politique en mm-hmm. tey actualité Covid-19 nous a jël C'est l'actualité mm-hmm. exclusive de la semaine mm-hmm. du lundi au dimanche mais euh, tu quand même bon euh, la collectivité continue à fonctionner dans ses projets d'investissement dans son fonctionnement dans sa mission en tout cas euh, de structure publique Ningiti, ngi le seul message que nga xamné mom à nos concitoyens vraiment moy ñu nous ñu ci que tout le monde s'y mette c'est-à-dire que les conseils de quartier les délégués de quartier les élus les relais communautaires nit ñi nañu def sensibilisation vraiment pour que nous mën et pourtant vous avez beaucoup de bonne volonté moi j'ai vu quasiment parce que ASC yëpp ñi ngi jël euh, def en tout cas euh, di a ay masque de maye dans les quartiers et comme je dis euh, nous avons am masque mais nous avons des góorgóorlu nous avons des farlu nous vigilant parce que le Covid mi fait def ravage Il ngi def ay ravage partout au Sénégal mais mi ngi commencé def ravage fii ci en bel donc ñu ñu bàyyi ci xel man daal loolu rek laa amoon lu ma leen di wax di di sant di leen gërëm jërëjëf voilà monsieur le maire di la bu baax am solo bu baax mbokku internet yi fii la ñu yem ak yéen ci seen émission pencum Hann balaa ñuy wax dara ñu bàyyi la Mado nga tàggatoo ak mbokku internet yi ñu doon seetaan waaw maa ngi lay jaajëfalaat euh, ci penc gi ñu am tamit di remercier suñu mbokk internet yi nga xamante ne ñoom ñoo safoo Hann TV jël seen temps toog duñu seetaan voilà monsieur Babacar Meng ñu ngi koy remercier bu baax ci disponibilité bi di maire bu Hann bel remercier également moom ma doom mbégte laa amoon ak contentement jàkkaarloo ak moom ci émission bi di remercier également yéen mbokk internet yi te ñu leen di dig daje seen beneen émission pencum Hann ak suñu invité jërë ngeen